bu ko kenn wutee émission gox bi comme niñ koy faral di defee rek dimanche bu jote fii ci rajo Rewmi FM tey nak émission gox bi di dalal ki nga xam ni moom moo di Boubacar Djiba Boubacar Djiba ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax euh, Mbemba di rafetlu invitation bi di rafetlu dalal bi nga ma dalal ci émission bu am solo bi. ji Djiba di fàttali ni yaa ngi bawoo ko fële nga xam ni moo di Thiaroye-sur-Mer candidat nga fa ngir bëgg toog ba ba laata ñuy ñëw waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, dëkk boobule di euh, Thiaroye sur Mer daal di waxtaanee lépp la nga xam ni ajo na fa la jëm ci say bëgg-bëgg li nga xam ni moom moo jëm ci gestion bi nga xam ne moo di équipe ba nga xam ni moom moo fa nekk saa si loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye laata loolu dañuy ubbee rek li nga xam ni moom moo jëm ci actualité bi actualité bi li ci gën a fës fan yi mooy li nga xam ni moom moo jëm ci université yi université bu Bambey université bu Gaston Berger bu nekk ca diwaanu Ndar ak université bi nga xam ne nag moom moo ci ndakaaru bi gis nañ ni dañu yëngu woon lool fan yi li ko waral nag benn étudiant moom moo wàññeeku fële nga xam ne moo di ñenn ñi di wax intoxication la waaye étudiants yi ñoom dañoo dàq thèse boobu euh, li nga xam ni moom moo jëm ci université yi ba tax na problème juddu fa gis ay jàmmar jàmmarloo yu metti bien vrai que am na accalmie lan mooy sa commentaire bu njëkk ci li nga xam ne moo jëm ci li xew ci université yi. waaw Mbemba damay wax rek ne euh, loolu du du guléet muy am parce que du guléet étudiant di ñàkk bakkanam du guléet ay problème euh, euh, de santé di jóge ci wàllu restaurant yi nga xamante ni mooy restaurant universitaire parce que li may wax nii dama ko maîtriser bu baax man jour bi Balla Gaye di wàññeeku man j'étais étudiant maa ngi nekkoon université nekkoon campus social donc mbir yi fa la ma fekk Euh, côté intoxication je me rappelle am na benn année boobu maa ngi def euh, licence ñu mosoon am benn intoxication université ba suñuy ay xarit yu bëri euh, dañ leen évacué woon jour boobu yóbbu leen si hôpitaux yi nga xamante ni ñoo nekk en ville à savoir Dantec wala wala principal njàngat biñ ci mën a am nag dañuy wax ni Euh, gestion peut-être bi nga xamante ni moom moo war ci suñu université yi ba tey gisuñu ko parce que dañuy seet seetlu ne chaque année c'est les même problème qui reviennent sur la table donc quand les problèmes reviennent c'est-à-dire que dañu ut ay solution amuñu solution yi wala ñu ngi jéem a faj fajoogul loolu nag li muy laaj mooy il faut que nguur gi jëlaat ay matukaayam bu baax a baax a baax a baax a parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk université yi ñoom ñoo war a yor réew mi ëllëg dañ leen war a mettre dans de très bonnes conditions dañ leen war a mettre si conditions yoo xamante ne nii bu ñu fa demee di jàng seen xel dina mën a dal parce que da ngay gis loo xamante ne nii ñaawteef la boo xamante ne nii ñëpp dañ ko dañ koy ñaawlu muy muy loo xamante ne nii dafay persister te chaque fois bu problème amee dangay gis ñuy dugg ci biir campus sociale di daq étudiants yi ba seen néeg di leen génnee di leen dóor loolu dafa nekk loo xamante ne nii man mën naa wax ni Sénégal rek ngay gis. est-ce que jotul ñu jël itam ay matuwaay wala xoolaat article bi nga xam ni moom moo tënk li nga xam ni moo jëm ci wàllum franchise universitaire ndax loolu euh, étudiants ngi ñoom dañuy loolu dañuy tëdd tëdd ba si naaj bi di ko daal di bañ est-ce que jotul xoolaat texte yi itam ci li xam ni moo jëm ci wàllu woowu. non balaa ñuy xoolaat texte yi man li may wax rek moom mooy dafa dafay jaadu ñu woote waat ay assises yoo xamante ni dafay concerner université yëpp. seeni doxalin xool université yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yor ñu càmbar problème yi nga xamante ni chaque année parce que comme ni ma ko waxee sànq rek c'est les mêmes problèmes qui reviennent lan ban solution la ñu war a mun a am boo xamante ni xëy na tey bu ñu ko tegee au bout de deux ans trois ans war nañ mun a faj li nga xamante ni nii moom moo fi am parce que les revendications sont les mêmes euh, franchise universitaire ñun bi ñu nekkee université lu yàgg la lu yàgg la ñun bi ñu nekkee université on a on a on a participé à beaucoup de euh, comment je de grève yoo xamante ne nii euh, force de l'ordre yi bu ñu ñëwee buntu université la ñuy yem buntu université bien vrai que am na benn année boo xamante ne sax dugg nañ ci biir dem pavillon A saccagé fa ay néeg def fa loo xamante ni naka su dul noonu suñuy sœurs yi nga xamante ni sax dañ nekkoon euh, pavillon des mariés nga xamante ne année boobu dañ ko déjee woon joxoon ko jigéen ñi mais dañ fa doon dugg di leen def naka su dul noonu di leen dóor donc loolu nag dama war a wax ni Euh, nguur gi moom moo ci war a jóg parce que ñiy def loolu ak étudiants yi ñëpp nguur gi moom moo leen boole yilif donc moom mi nga xamante ni moo ñu boole yilif ñun ñëpp tey su wootee loo xamante ni lu sérieux la pour ñu xoolaat université naka lay doxee je pense que dinañu dinañu weesu fi nga xamante ni moom la ñu toll problème di am ñu ñëw université di dafa dugg. mais tey mun nañu reconnaître leen itam ay jéego am na ci lu jëm ci wàllum joxe bourse yi am déggatuñ ci lu bari mais ay jéego am na ñoom itam bu jéego amee nañu wax ni jéego am na comme ça avancement bi mun a yomb. waaw ay jéego am na loolu kenn mënu ko bañ que ce wàllu joxe bourse bi wàllu euh, logement yi loolu yëpp dafa nekk loo xamante ni nii ku gis euh, nen ne nen ngi. loolu moom kenn weddiwu ko mais yow euh, ku jaar université ku nekk xam na ne chaque année demande bi dafay gën a yokk donc loolu gestion boobu rek moom moo des mais gestion boobu su fekkee ñu ngi koy jël di di jël en compte demande yu bees yi ak euh, population bi nga xamante ne tey moom mooy nekk université parce que tey boo xoolee ñi am bac Sénégal yëpp université nu leen gérer loolu moom moo waral programme bi nga xamante ni nguur gi daf ko tëraloon depuis juróom-ñaari at ci ginnaaw nga xam ne ñi nga xamante ni mënuñu leen jël si université publique yu mag yi dañ leen di yóbbu ci université privé yi privé yi xaalis moo tax euh, état au Sénégal yóbbootul yenn ñenn ñi ci privé mais leneen li nga xam ne itam ci biir semaine bi nemmeeku nañ ko mooy li nga xam ne moo jëm ci ab euh, marche wala rassemblement bu mag bi nga xam ni Y'en a marre woote woon na ko ak FRAPP France dégage yoon a ngi jéng la ñuy wax ndax yow bokk nga ak ñoom benn kàddu boobu yoon a ngi jeng. man damaa d'accord si yoon a ngi jeng. lu tax parce que tey rassemblement boobu rassemblement pacifique lañ demande waxuñu ne dañuy dem xaañ kenn waxuñu ne dañuy dem yàq dara dañ ne dafa am lu leen naqari te foog naa loolu constitution moo ko may groupement bu mu munti doon boo xamante ni nii wala mouvement la wala koo xamante ni organe bu structuré la. bu fekkee dafa am lu leen naqari ñu déposé ni dañoo bëgg dox doxu ñaxtu wala ñu toog toogaanu ñaxtu yoon war na leen ko mun a may nguur gi luy rôlam ci loolu moom mooy na fexe ba encadré ko moom mu bañ a mu bañ a déborder mais su weesoo loolu man damay wax ne yoon jeng na. ci naka ndax da nga gis ay euh, ku ma am ndey ak ku ma amul ndey yi nga xam ni ay loo ci yenn dossier moo fi am. waaw parce que su ma jëlee situation ñu toll nii ñu ngi ci pré campagne mais da ngay gis fu nekk ñi def ay marche ñi def ay meeting ñi def lu nekk ñooñ terewuñ leen pour pourquoi ñi ne dañuy def rassemblement ñu tere leen donc euh, bokk sa doom dóor doomu la. donc jot nañu xoolaat li nga xam ne moo jëm ci doxalin yoon. bu baax. Euh, wéy ba tey ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique itam euh, gis nañ fi itam violence yi nga xam ni nemmeeku woon nañ ko fay ba tax na euh, cadre unitaire de l'islam ak jàmmi réew mi jug neen ñoom dañuy dox tànku jàmm ne dañuy dem wër ci yenn kuréel politique yi. ñu daal di signé ay charte mm-hmm. ngir li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum violence ngir ñu bañ ko gis ci élection yi ñu jëm. Mm-hmm. charte bi ndax yow d'accord nga ci ba pare laata ñuy dugg ci fond bi. ndax d'accord naa ci. ci charte bi. waa d'accord naa ci. Mhm. di nga ko xaatim. Euh, man dinaa ko xaatim. Mhm. lu tax. Euh, parce que su fekkee charte bi euh, pour que jàmm am ci dëkk bi la kenn du ñu woo kenn ci jàmm ngay bañ su fekkee li ñuy woote maanaam pour jàmm am ci dëkk bi te pour violence bañ a am ci élection yi man gisuma loo xamante ni nii war na mu mën a tere ma signé ko mais. su fekkee liir liir nañ ko nag gis loo xamante ne nii xam nga euh, lu ñuy wax rek ne loi dafa xaw a lëndëm loi dafa xaw a lëndëm mën nañ la woon loo xamante ne nii tey soo ko xoolee am na si ay ay paragraphe wala ay yenn tomb yoo xamante ni dafay laaj interprétation su boobaa nag mën nga xalaat ni xëy na am na leneen lu ñuy làq ci ginnaaw la mais comme ñun gisaguñ ñu ko joxaguñu ko carrément ñu xam euh, le contenu bu fekkee rek pour jàmm am ci dëkk bi violence bañ a am ci élection yi loolu foog naa képp kuy woote jàmm Sénégal buñ la ko joxee war nga ko xaati. est-ce que ku yor nguur itam warul encadrer laata ñuy ñëw ci charte benn charte lañ am mooy li nga xam ne moo jëm ci constitution est-ce que bu bu ñu defoon lowar yëpp mooy maanaam nguur gi ñoom ñoo yor police ak gendarme ñoom est-ce que tey li nga xam ni moo jëm ci wàllu woow yi gënul fës ci seen boor ñoom. waaw loolu ñoom la war parce que comme ni ma ko waxee ci njëlbeen. Euh, marche bu amee wala lépp mouvement boo xamante ne ni am na man je pense que suñu force de l'ordre am nañ effectif boo xamante ni lu fi war a mënti am comme marche war nañ ko mën a encadrer donc loolu euh, nguur gi la war xëy na tey liggéey boobu ñoom buñ ci xaroon seen tànk tubéy def ci li ci war xëy na ay charte ak ay da ngay signé ak doo signé duñ fa egg. Mm-hmm. duñ fa egg semaine bi itam dégg nañ fi coalition Yewwi Askan Wi. Euh, ne ab plainte la ñuy daal di jébbal ki nga xam ne moo di Jibril Ngom wax nañ sax ay haute trahison jëmale ko sax ci njiitu réew mi ndax dañ jàpp ni mandataire ba woon Jibril Ngom nekkoon ca yeewee askan bi moom am na nu mu def seen papier yi ba tey njiitu réew mi recevoir ko ñoom dañu jàpp ni loolu tegewul ndax yow bu doon yow danga ko recevoir. bu doon man duma ko recevoir parce que kooku dafa wor dafa war donc coalition lëm ñoo jël jox ko seen confiance. parce que tey mandataires yi nga xamante ni yëpp dañ leen jox ñu dem diriger ay liste gérer dépôt yi moom lañ ci lañ ci ràññee ne moom moo def wor bu mel noonu te loolu dafa ñaaw tey si démocratie bi nga xamante ni Sénégal da koy woote parce que ñun dañu tàmm fépp fu ñu waxee démocratie si Afrique rawatina Afrique de l'Ouest ñun dañuy yëkkati suñu loxo donc bu ñu demee tey ba lu mel noonu am ñu prouver ko ne dafa am ñu recevoir ko man damay gis ne ñu ngi waaj a dellu ginnaaw ci démocratie bi nga xamante ne dañ doon woote ne dañ cee sori wala dañ cee jël pay. am na ay voix yu jóg ne li nga xam ne moo jëm ci plainte bi wala mbirum haute bi warul woon ñu def ko ci njiitu réew mi ndax da nga ànd ak ñoom wala danga jàpp ni pétition bi ñu teg itam signé ko lu war la. waaw mbetteel bi ma si am man moom mooy euh, le fait que moom mu def loolu ba mu siiw Sénégal ñëpp xam ko njiitu réew mi recevoir ko. tey li ñu waxtaan ak lu ñu waxtaanul fu mu ne nii askan bi jéemu koo xam askan bi lan la xam diw trahir na opposition bi njiitu réew bi recevoir ko te loolu ku am xel bu ndaw rek di nga xalaat ni xëy na njiitu réew mi da koy recevoir pour lu mu def euh, opposition bi te loolu man damay d'accord ne war nañu signer pétition bu mel noonu. ok war nañ signer Boubacar Djiba moom mooy sunu gan tey moom candidat la ca commune bu Thiaroye-sur-Mer mbokk yi itam yéen ba ngeen bëggee duggee ci émission bi rek mën ngeen def 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88. 628 86 86 ngeen bëgg euh, mën a bokk ci waxtaan bi euh, ca commune thiaroye sur Euh, su ñu nee ci sa Thiaroye sur Mer lay njëkk a jox d'abord. su ñu nee caaro sur Mer lu may njëkk a xalaat mooy dëkk lébu lu may njëkk xalaat mooy dëkk ñu fier lu may njëkk xalaat mooy dëkk ñu gëm seen bopp dëkk ñu bëgg liggéey. Mhm. loolu lay xalaat. tey ci at bi nga xam ni sanc nañ ko Thiaroye. Mhm. Euh, laata ñuy ñëw sax ci mairie bi ndax caaro yi gis nga fa yow euh, ay jéego ay amelioration laata ñuy wax sax ci gestion équipe bi nga xam nekk ndax gis nga fa nemmeeku nga fa am na la nga xam ni soppeeku na ba ngay xam caaro yi ba tey. waaw Mbemba man caaro yi laa laa yaroo mun naa wax ni depuis 1982 maa ngi dëkk caaro yi mais 82 ba tey amul benn jéego boo xamante ni tey kuy waxal dëgg mën nga ne caaro yi teg na ko tey ñun fa ñu nekkoon fa la ñu nekk. ci côté ci wàllu yu bëri ñun dañoo dellu ginnaaw. <laughs> ci naka. lu ma boo gisee man la dañoo dellu ginnaaw ñun caaro yi comme ni mu la ko waxee dëkku cosaan la dëkk yu ñu wër yëpp caaro yoo leen jur. donc tey bu demee dëkk yooyu di dem romb caaro yi donc loolu mooy wane ni caaro yi taxawul fa mu nekkoon sax waaye dafa dellu ginnaaw. kon taxaw seetlu jot na. tax dafa jot taxaw seetlu dafa jot te loolu moom moo motiver. ñun suñu candidature. dañ ñëw si sa candidature ñu waxtaan ci caaro yi d' abord ba pare alors euh, nga doon xool caaro yi bu njëkk yaa ngi naan euh, amul amélioration kon caaro yi ba njëkkoon ak tey wutewul dara la lan moo tax ñu mu xaw a soppeeku. Euh, caaro yi bawoon xam nga ñun dañu am chance am deux fois maire de la ville suñu papa Alioune Samb dëkk caaro sur mer nekkoon na maire de la ville. suñu pap Dawru Ñaanjaay nekkoon maire de la ville euh, dëkk Thiaroye sur ba tey mais ñooñu nekk nañu maire Thiaroye sur nekk maire de la ville mais ci seen gestion amul benn jéego boo xamante ni te xëy na tey ñoom teg nañ ko pour que Thiaroye mën a jëm kanam tey ku dem Thiaroye ku la wax ni fii mës na am maire de la ville yow doo ko gëm man xam naa boo nekkee maire dëkk ci gox jóge foofu ci gox boobu ñu fal la maire de la ville nga continuer di coiffer gox boobu li gënoon a rafet mooy gestu gox boobu nga mu mun a profité ci projet yi nga xamante ne ne xëy na tey da koy defar ci domaine yu bëri pour que sa gox mën a mën a avancer. beneen bi ci topp euh, maire bi nga xamante ni moom moo fi toog maire PDS la te ñëpp xam nañ ne Ablaye Wade. am na Njaga Ñaan la tudd Njaga Ñaan la tudd. Njaga Ñaan tudd maire PDS la te ñëpp xam nañ ne Ablaye Wade am na fi ñaari mandat ci ñaari mandat yooyu. ay maire PDS profité nañu si reñu Ablaye Wade defar seeni gox ba mu rafet je prends l'exemple de Guinaw mi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu jaakaar lool moom maire PDS la am mais profité na si deux mandats Ablaye Wade yi defar Guinaw Rail ba mu rafet ñun nag ñun ñoo ci gañewul dara te Mbemba dam lay rappeler ñun alternance dafa am caaro caaroy fekk Ablaye Wade nekk gul président. Hmm? donc depuis quatre-vingt-seize la maire bi nekk PDS. donc ñun bi ñuy gañee bi bi bi bi maire Thiaroye-sur-Mer di nekk euh, PDS boobu Abdoulaye Wade nekkagul sax président. donc ñun tey gisuñu dara dara dara loo xamante ni tey Thiaroye-sur-Mer wu na si ci jaar bi fi Abdoulaye Wade jaar gisuñu dara dara loo xamante ni Thiaroye profité wu na si si. Euh, ñaari maire de la ville yooyu nga xamante ni ñoom laa cité mënuñu la woon sax benn place publique wala benn banc wala loo xamante ni gis nañ ni ñii ñoo ko fi def pour améliorer cadre de vie wu Thiaroye sur Mer. ah mais Djiba itam bu ñu la déggee ngay wax ñaar fukki at nga wax 96 euh, mu nekk fa ak léegi ba tey nga ne gisoo bant bu ñu teg foofu. gisuñu ko gisuñu ko parce que boo gisee ñu ne la gisuñu ko xam nga li ñuy wax rek ne investissement dafa bëri euh, ay domaines tey mënoon nañ wax. ci wàllu santé d'abord. Euh, Caaroy sur Mer ba woon ak tey lan moo soppeeku ci wàllum paj wala amul lu ca soppeeku. wàllum paj moom lañ gën a sooxe. ah ci naka. te dinaa la jox ay détails. acca ñun si commune bi dañu seetlu ne dañu am ñetti poste de santé. ci commune bi commune bi. benn bu ci njëkk moom moo nekk moo taqaloo ak état civil bi. moo nekk biir caaro Caaroy village traditionnel beneen bi ci topp mi ngi tuubaa caaro yi beneen bi troisième bi mu ngi euh, Thiaroye Azur cité ISRA mais poste de santé yooyu mooy poste de santé yoo xamante ne nii boo feebaree nga dem fa pour ñu jox la tablette u paracétamol buy cent bu jar cent franc sax c'est un problème. lal <laughs> lalia tablette paracétamol buy jar cent franc pour ñu jox la ko sax c'est un problème. xanaa ñooñu du ñu jot ay subventions. gisuñu ko gisuñu gestion boo xamante ni tey lu dal xel la ba ba ku am malaat yóbbu fa sa malade. la preuve euh, xale yi fay football plusieurs fois man personnellement yóbbu naa fa ay ñoo xamante ni dañuy am ay blessures ñu war leen yóbbu foofu ñu ñawal ñu ñawal leen soit ay blessures ouvertes yu ñuy am mais boo fa demee sax ba dugg fa dañ la naan demal ci pharmacie bi nga ut fil à suture boo ñëwee ñu defaral la poste de santé yoo xamante ni c'est des postes de santé yoo xam dañ koy tudd noonu mais dara amu fa bu caaro yi moo gën a doy waar li muy tëj moo ëpp li muy tijjeeku. Ah, lu tax muy tëj. parce que fonctionnement bi mu war a fonctionner ba tey amu fa parce que personnel bi ñu fa war a affecté leen fa benn vacataire la am il vient pas tous les jours te poste de santé boobu position ba mu nekk li muy polariser ci population dafa bëri donc boobu bu doxul moom mooy musiba am na si si ci gox ba. kon su ma la déggee mooy euh, Thiaroye-sur-Mer ci li jëm ci wàllum paj paj ma sax moo feebar. moo fe paj maa feebar pour gàttal paj mi si boppam moo feebar paj boobu nag moo jar ñu faj ko. <laughs> léegi euh, euh, yaa ngi wax mbirum santé est-ce que tey euh, kon askan ba nga xam ñoom ñoo fa yeewoo kon ñoom xanaa dañuy tum ranke di askan ba fay ba fay yeewoo li leen dal seddul ma expliquer lan moo tax man lu leen dal seddul seddul ci wàllum paj ci wàllum avancé mhm. ku fa am malaat comme suñu ñetti poste de santé yooyu mënoo fa yóbbu sa malaat ñaari structure nga ko mën a yóbbu yu gën a jege Thiaroye sur Mer mooy ginnaaw ra fële Sicap Mbao poste de district sanitaire bi nekk si Sicap Mbao mhm. wala hôpital de Pikine mooy bi nekk ci biir camp bi te ñun aussi ñaar yooyu ñuy yóbbu ñun waa Thiaroye sur Mer arrangé wuñu lu tax arrangé wu la Sicap mbaaw nañ ko wax te dee baaxatul lal ya baaxul matelas ya dañoo ruus kuñ fa kuñ fa hospitalisé si boppam ay yow moo lay rey parce que moustiquaire sax si boppam pour ñu joxe ko fa problème la donc foo xamante ni da nga fa bëgg a rawale sa malade boo demee xool cadre bi sax yow si boppam yow mi yóbbu malade bi da ngay tiit waxatuma la nag malaat bi nga xamante ni moom moo yaakaar ni dañ ko fa war a fajee loolu benn la beneen bi ci topp moom mooy hôpital de Pikine bi nekk ci camp bi ñun Thiaroye-sur-Mer majeure partie population bi suñu doole mayuñu ñu ñu ñuy mën a fréquenter structure sanitaire yu mel noonu parce que jege nañu mais damay wax ne du pour ñun parce que booy boo defee jàngat bu ndaw da ngay gis ni clinique la tey koo xamante ne ni tey 2000 francs dépense des fois par jour da nga koy taqale nga am malaat yóbbu ko foofu ñu la boo joxewul caution cinquante mille duñ ko laal damay wax ne loolu tamit ñun arrangé wuñu donc wàllum mpaj mi ñun dañ ci am problème boo xamante ni nii problème bu rëy la. xanaa bu ngeen amee problème ci wàllum paj xanaa jàng bi itam mën a ñoŋ. jàng bi baaxul. Ah, lu tax baaxul. xam nga ñun suñu programme bi nga xamante ni dañ koo tëral point bi nga wax bokk na ci wàllu paj mi point bi nga xam ne mooy njàng mi ci la bokk te ñun tëbuñu rek bind ci. dañoo def ay jàngat dem dugg ci école yi waxtaan ak population bi waxtaan ak per de famille yi pour mun a def benn conclusion boo xamante ni ni benn synthèse bu ñu mën a permettre ñu peaufiner suñu programme parce que programme nekkul ne dangay ñëw rek toog ay point yu nekk sa xel rek nga bind ko. kon kon buñ ci sooxee. kon mbirum jàng bi ci commune ba fee. waaw mi ngi dox. doxul ah lu tax doxul. ñun dañ ci def am njàngat bu ndaw. mu ngeen dañ njàngat boobu ngeen ci def yéen. waaw bu ñu ci defee njàngat boobu résultat yi ñu trouvé. moom mooy dañ def benn comparaison dañoo gis ne fukki at yi ñu paase wala fukki at ak juróom yi ñu paase concours yi nga xamante ni yëpp dañ koy dañ koy bàkkoo Sénégal ne ñiy def CM2 wala ñi nga xamante ni dañuy def euh, troisième dañ koy def ñun gisuñu ay doomu Thiaroye sur Mer yu ciy at mi mooy njàng mi soox na Prytanée militaire bii sax bi ñu ci gëjee am élèves yi nga xamante ni dañ ci at mi xamagu xam xamuñu kañ la enquête boobu ci lan la basé wu enquête boobu dañoo dem si école yi waxtaan ak ñoom ne leen ñoom candidat yi nga xamante ni ñoom la ñuy euh, andi ci examen yi nga xamante ni dañ koy def à partir de CM2 parce que si primaire yi lañu dem. Hmm. primaire xam nga ñoom ñoom ñoom la examen prytanée militaire concerné. ñoom la Mariama Ba concerné mais dañoo gis ne. amuñu ay at mi yoo xamante ni ñi ngi nekk foofu di dem Prytanée militaire ou di dem collège d'enseignement Mariama Ba li tax aussi tamit ñu gis ko bi ñu demee ci yenn école yi ma jël exemple comme benn école bu nekk euh, Malick Diop mu nekk école bu siiw parce que mooy centre de vote bi nga xamante ni moom moo ëpp bureau de vote bokk ci école yi nga xamante ni bokk nañ ci école yi njëkk thiaroye sur boo demee mur ya baaxatuñu toilettes ya sax pour euh, xale yi def seen besoin problème la ci koo xamante ne dangaa ne tey dangaa bugg am njàng dox ci sa gox te loolu jéem a ut solution pour mun ko faj donc damay wax ne situation bu bu continuer nii ñun dinañ gëj dégg ne doomu thiaroye bii chef de service la sax waxuma la nag ministre wala président de la. kon bu continuer noonu jàng ba dafay gën a sooxe. dafay gën a sooxe te nag loolu il faut ñu faj ko. te ñun am na lu ñu ci xalaat loo xamante ni xalaat nañ ne war na ko mën a faj. Mhm. léegi euh, li jëm ci wàllum abri provisoire sonalu leen foofu. ñun amuñu abri provisoire abri sonalu leen. kon donc lu tax jàng bi ñoŋul foofu. li tax jàng bi ñoŋul moom mooy condition yi nga xamante ni moom la élèves yi di jàngee école yi dafa fees dell bëri. te ba tey jéem a ut ay solution yoo xamante ni comme damay dellu siwaat encore ci Malick Diop boobu ma la wax ñun ba ñuy nekk xale ay euh, di def école primaire dans les années quatre-vingt école ba na meloon noonu la mel ba tey amul lu lu ndaw loo xamante ni mun nañ wax ne benn brique la boo xam ne dañ koo jël yokk ko ci te situation bi mu mel dépassé na école yoo xamante ne ni ay ardoise lay am dafa dépassé tey waroon nañ mun a ut solution pour jéem a xool avec le ministère de l'enseignement comme effectif yi yokku nañ population Thiaroye sur Mer bu dans les années quatre vingt ak deux mille vingt et bokkul ñu jéem a xool naka lañ koy mën a modifier construire en hauteur yaatal école bi mettre xale yi dans de très bonnes conditions parce que tamit résultat yi condition yi xale yi di jàngee tamit mooy feeñ ci résultat yi xale yi bu fekkee am nañ sax bëgg-bëgg bi amour baa ngi fi mais mettre ñu leen dans de bonnes conditions mais résultat du am condition njàng ak résultat ñoom ñoo mën a ànd <laughs> codition jàng euh, résultat yi dëgg la naam euh, kon su ma la déggee mooy xanaa léegi euh, li jëm ci koñ ba nekkin beeg dundin bi am na yokkute bu ne li ni mel li jëm ci wàllum infrastructure ci dëkk ba xal yi xëy na am na yi jagadi woon defar nañ ko li jëm ci wàllum cadre de vie xëy na am na soppeeku foofu. Mbemba bi ñuy commencé xam nga dem la wax ne la Thiaroye sur feebar ba mu feebar. mooy feebaru foo laal mi ngi métti. wala lépp urgence sa yow caaroy sur mer. am na yu gën a urgent am na yu ci topp. lan moo ci gën a urgent tey. li gën a urgent tey man damay wax ni cadre de vie éducation ak santé. da ngeen ko tumuraanke foofu. moom mooy li gën a xam loo xamante ni nii tey moom mooy priorité moom mooy priorité boo xamante ni nii daal li gën a euh, urgent loolu la. <laughs> faaw ñu indi ci baral ci ay jéego. foog ñu baral ci ay jéego. te baral ay jéego boobu noonu mën na soppi xar kanamu dëkk bi mhm. parce que ñun euh, bët bi ñuy xoolee neexuñu. ban bët lañ leen xoole mais bëtu ñëpp a ngi avancé yéen demoo leen bët boobu la ñuy xoolee est nekkul ni tey ka ngeen fa teg mhm. pour mu jëmale euh, dëkk ba kanam mhm. euh, est-ce que du échec bi fa la tàmbale échec bi man damay wax ne mi ngi tàmbalee ci population bi ko fal parce que xam nga tamit nit tamit bu ñu lay fal confiance moo tax nit ñi fal la wala am yaakaar boo xamante ne nii yaakaar nañ ko ci yow moo tax ñu fal la mais buñ la falee yow jéemoo defoo dara ba élection ñëw man population yi bu ñu xoolee seen bopp gis na ñëpp a ngi dem ñoom demul ñoom ñoo war a gis ne liñ fi teg doxul dañ ko fa war a génnee teg leneen. Mm-hmm. bañ doore émission bi ba tey gisuma nga ne maire bi tey lii dafa def xanaa ku fa def ñaar fukki at nga jàpp ne nga mën ko nangul itam ne def na lii. nit ñi mën nañ ci teg seen bët kon ñaar fukki at amul dara loo xam ne yow mën nga si teg sa bët. ñaar fukki at lépp loo xamante ne nii population Thiaroye-sur-Mer mën na ci teg bëtam mooy benn maison de la femme boo xamante ni tabaxoon ko yàgg na te maison de la femme boobu tabax nañ ko mais maison de la femme dafay dox mais ma nekk maison boo xamante ne ni dafay am activité dañ fay def ay réunion euh, euh, groupement féminin yi nga xamante ni dañ nekk Thiaroye dañ ciy yëg seen bopp mais loolu amul loolu amul c'est une maison qui est fermée qui n'est pas animée peut-être fan yi sax mi ngi dox parce que enquête yi nga xamante ne ni moom lañ doon def ci restructuration Thiaroye-sur-Mer foofu lañ jël comme defee saisie yi mhm. les frais de Thiaroye bi ñu décroché euh, formation pour euh, euh, les jeunes de la localité c'est les frais pour les jeunes de la localité sur les métiers d'informatique de câblage jëloon aussi pour que ñenn ñi ñu leen fay jox seen cours léegi carte de vie ñu dellu ci waat tuuti kon donc amul fu xale yi di euh, defee li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum épanouissement amu fa. wàllum épanouissement yi ñi ko am moom mooy les nouveaux quartiers. xam nga Thiaroye sur comme ni mu la ko waxee rek. kon xam nga boo ma nee amul xaw a mel ni dëkk bi yëpp la. non kon am na fu am. am na fu am. Hmm. mais damay ñëw si fu am nu mu mel. waaw ah. damay ñëw si fu am nu mu mel. parce que bu amee te toppatoo wuñ koy am bi. zéro lay zéro lay doon dafay nuyu zéro. Euh, biir dëkk ba am na benn espace boo xamante ni xëy na mënoon nañ ko aménager pour cadre boobu au niveau du village traditionnel mais brique teguñu ko fa sax le nouveaux quartiers ñi nga xamante ne am nañ ko c'est les populations ñoom ñoo fexe parce que xam nga quartier yooyu biñ leen koy jaay euh, selon les les les les lois sur euh, l'immobilier tu es appelé à laisser des espaces verts des espaces publics et autres ñooñu population yi ñoom ñoo fexe ba ut seen kémt lay kàttan pour mën a defar espace yooyu mais espace yooyu sax tey boo fa demee dangay gis ne defar bi mu waroon a am defaru ko te loolu mettre la population si benn cadre de vie bu baax loolu mairie daf ko war a mun a def bu ñu seetee amul benn jéego boo xamante ne si espace yooyu nga xamante ni des na ñu wan la ci tey benn banc public wala benn brique boo xamante ne ni maire bi tey moo yëkkati def ko fa. Euh, Euh, ndaw yi di ut fi nga xam ne ay bërëbukaay la yoo xam ne dañ fay dem di fa tàggatu wala di fa féexlu comme li ñuy jote wax cadre de vie euh, dafa tumuraange ci dëkk ba léegi te yéen da ngeen di jóge caaro yi dem ca Pikine di fubali euh, lu waral lool ñàkkum infrastructure moo ko waral ñàkkum infrastructure moom moo ko waral caaro yi tëbul rek nekk caaro yi caaro yi dafa doon màgg te màgg bi mu doon màgg war nañoo mun a prévoir ay parties yoo xamante ne nii mënoon nañ ko déjà réserver pour euh, cadre de vie pour mën ci def stade pour mën ci def leneen ak leneen ak leneen loolu vision boobu la suñu njiiti amul woon parce que gouverner c'est prévoir xëy na tey Thiaroye am na ay quartiers yu bëri yoo xamante ne tey y a dix ans existé wuñu woon suñu prévoir woon que foofu war nañ fa mun a def stade municipal war nañ fa mun a def leneen leneen ak leneen comme tey feebar bi nga xamante ni moom moo ñu dal ci wàllu sport ba ñuy jógee ñun caaro di dem Pikine di fa footbali xëy na loolu du ñu dal dañuy dëkk ci gox bi di footbalee si gox bi. lu war a nekk la. waaw te am nga ci xalaat. am naa ci xalaat. Mhm. lan la man xalaat bi ma ci am moom mooy comme wàllu boobu dañ cee tumuranke euh, bu ñu jàngatee li nga xamante ni moom moo fa des comme foncier pour dire vrai. Mhm. amul fenn foo xamante ni tey mën nañ ko mën a dem jël récupérer ko pour mën fa def stade. amul. amul kon amul surface boobu amul fi nga may waxeek yow nii suuf amul caaro sur suuf amul caaro sur dañ ko jaay wala dañ ko caxat caxatee eh, dañ ko jaay est ko saytu bi leer na saytu euh, saytu bi leer na am na yoo xamante ni ay coopérative la woon ñoom jël nañ si li ñu moom parce que boo jëlee fi ñu daan footballé sax nawetaan kade foofu c'est la société Nestlé moom seen coopérative d'habitat moom moo ko moomoon donc fa lañ doon def terrain ba ñu bëri ñu xamul woon sax dañoo foog ne espace boobu noonu thiaroye sur moom moo ko moom ko tôt ou tard dinañ fa tabax stade. donc ñooñu ils ont levé du jour au lendemain seen kayit yi bi ñu ko régulariser parce qu'ils étaient en retard par rapport à la régularisation de leur de leur titre foncier bi ñu nee ba régulariser titre foncier bi dañoo ñëw commencé morceler di tabax ci lañ bëri ñu xam ne ndekete terrain bi du woon terrain Thiaroye-sur-Mer. mais lu tax mairie bi waxu ko bu yàgg. mairie bi dafa dafa dafa dul joxe la bonne information. mairie bi dafa dul joxe la bon information parce que ñu bëri comme xalaatoon nañ ne foofu mooy nekk terrain bi biñ ko jëlee lañ xam ne képp ku dëkk biir Thiaroye-sur-Mer min thiaroye sur bu baax mënoo identifier fenn ci commune bi foo xamante ni nii tey mën nañ ne fii mën na nekk terrain de football amul. yaa ngi doon wax nga ne loolu am nga ci xalaat ci wàllum tabaxum stade xanaa ab partenariat ngay jaar. waaw même ba man comme euh, maa ngi sax sama programme. te euh, maa ngi ak samay naataango yoo xamante ne nii wàllu sport bi dañ ciy xaw a tële te xam naa ni jéego man yi ma ci avancé ñoom avancé wuñ jéego yooyu donc duma dugg ci yenn détails yi mais am naa benn partenariat boo xamante ne mën naa ko fa def public privé bu ñu mën a may ñu am infrastructure sportive moderne. bu ñoŋ bu ñoŋ bu ñoŋ bu tolloog bu méngoo ak jamono. Mhm. ci ci naka wala buggoo ci xuus. Euh, ci naka. Mhm. ci naka parce que am na ñoo xamante ne nii seen xam-xam màcc na jëm ci ci lëkkale. Euh, ñaari ñaari ñaari ñaari structure c'est-à-dire mooy partenariat public privé bi ma lay wax te ñi ngi ciy liggéey liggéey bu sori ba pare site bi identifié nañ ko donc pare projet bi ak waxtaan mooy des mooy des waaw euh, li fi waxtaan yëpp waxtaan nañ ci pàcc yu bari ci li nga xam ne moo jëm ci émission bi euh, kon tey bu fekkoon ab bilan ngay tiire ci maire bi xanaa da nga ko jox vingt vingt sur ñaata ah loo koy jox. deux laa koy jox si deux waaw. kon dara doxul. deux par respect. parce que bu ñu waxee bilan rek la ñuy wax moom amul bilan moom tey ñun suñu jógee di dem di def ay porta à porte wala ñu war a meeting bu meeting bu bu kii euh, bu bu campagne bi électorale bi ubbee moom warul woon warul woon warul woon campagne comme ñun nu ñuy campagner moom dafa waroon a wër di def bilan am def naa fi lii réaliser naa fi lii. population Thiaroye sur Mer jëlee naa leen fii yóbbu naa leen fële njàng mi taux de réussite bi jëlee naa ko pour pourcentage bii yóbbu naa ko pourcentage bële amul amul mais maire yi nga xamante ni nii tey ñoom ñoo defar seen gox am na ñu ma ci xam du ma tudd seen tur parce que ci émission laa nekk am na ñoo xamante ni samay xarit lañ damay toog di waxtaan ak ñoom ki am na si ku ma wax ne ma man Boubacar du ma du ma bu bu campagne bi commencé duma def ay meeting pour ut ay nit damay wër di présenter sama bilan pour won leen ni da ngeen maa defoon confiance ngeen fal ma sama mandat nag lii laa ci réaliser bu fekkee li ma ci réaliser doy na leen ngeen joxaat ma beneen mandat donc moom maire tey dafa waroon wër di présenter bilan am. te yéen budget commune bi ñaata la. dépassé nañ huit cent vingt millions. <laughs> est-ce que saytu bi leer na. say xaalis yi liy génn ak fu muy dugg fi muy jëm ci wàllum transparence est-ce que lépp la nga xam ni kan boo ma nee amul bilan kon dafa ce qui veut que saytu bi leerul. non saytu boobu mën mënuma ci xuus lu bëri parce que man du ma conseiller mais budget bi dépassé na huit cent vingt millions te euh, mairie dañoo weesu jamono boo xamante ne nii mairie dafay xalaat ci budget pour defar dëkk jamono jooju weesu nañ ko yàgg na lool. ñun ñi ñi ngi xëccoo ñi ngi xëccoo mairie <coughs> mais yaakaaruñu ci budget mairie bi tey pour defar ay point yu bëri tey su ma la jëlalee benn exemple euh, dama la wax sànq ne la. paj mi ak cet gi priorité la ci ñun te ñun liñ liñ ci nar a def yaakaaruñ ko ci budget mairie bi on a déjà noué des partenariats qui nous permettent de d'avancer sur ces points ay ñoo xamante ne ni pare nañu pour jàppale ñu parce que àdduna bi euh, du da ngay nekk ci benn coin rek nga tëju boo ubbee am na ay domaines yu bëri yoo xamante ne ni am na ñu ciy dimbali ay nit am na ñoo xamante ne ni dañoo toog yàkkamtuwuñu rek ku fëgg seen buntu ne la man kat problème mu santé ak laa euh, euh, euh, paj laa am sama dëkk damaa buggoon ngeen jàppale ma si ñu jàppale si jàppale boo xamante ne ni bu am solo la te côté boobu am na sax ay doomu Thiaroye sur yoo xamante ni dañoo nekk bitim réew dañ ci doon déem a def ay jéego mais dañu mujj banque seeni yoxo mm-hmm. parce que dañu ne lépp loo xamante ni dañ ko bëgg dugal ci commune bi dugg bi dafay jafe des fois dañuy dem liggéey ci liggéey ci ba mu desel leen benn signature pour am signature boobu dafay jafe trop te li may te li may wax nii waa Thiaroye sur mën nañ ko seede am na ñoo xamante ni sax bokkuma ak ñoom coalition xëy na ñu ngi may dégg li may wax nii tey waxuma ko nii mais ñu ngi may seede parce que ñoom dañ ci am preuve parce que boo jiitoo nga xalaat ne ah diwkat mi ngi am yu muy dugal ci dëkk bi mu ngi fiy def lii mi ngi fiy def lële mais da nga koy jéem a coince ni ñu koy coincé moom mooy lan xëy na bu àndee benn benn benn lenn loo xamante ni askan bi war na ci mën a bénéficier wu nga nga nga kale ko xëy na yaa ngi xalaat ne ëllëg si biir kii bu demee ba yàgg bu demee di def di def di def bu yàggee day laaj dëkk bi alors que mentalité boobu dañ ko war a dépassé ñun Thiaroye sur Mer dama lay wax Mbemba lu leer loo xamante ni kenn mënu ko dindi waaw bi euh, suñu doom yi nekk bitim réew suñu frères yeeg yooyu mës nañ fi andi benn ambulance boo xamante ne ni pour Thiaroye la pour fa c'était un grand dañu dem ba dese lu lul signature parce que ñoom dañoo déclaré dañ koy andi pour benn mairie léegi ñu ne leen def leen ay démarches si mairie boobu noonu mais démarches yooyu aboutirul ba dañoo dem seeti ñoom beneen mairie ñooñu ñoom ñoo def euh, documents yi ñu yóbbu ko ci mairie boobu. kon jàpp nga da jàpp ne lu baax ci mairie bi pour ñu ko indi si commune bi dañ koy détourné. du yomb pour ñu andi ko si parce que ñi la war a yombalal. parce que yow doo otorité parce que am na loo xamante ni yow soo koy def tey ci biir parce que man tey su ma toogoon sax am su ma amoon milliard ne damay pavé sama koñ. aw ma droit def ko tant que jaaruma ci mairie bi donc yu mel noonu la ñoo xamante ne nii dañoo bëgg caaroy avancé ñi def ay pas pour caaroy avancé mais duñ leen ko yombal. kon caaroy puusul paasul. puusul paasul avancé wul. te yow da nga ko bëgg a jëmale kanam fooy foo wekk loolu nga ne kii na puus nga ñëw toog fan nga teg loolu yow tey. man fan laa teg loolu mooy dama xalaat ni man programme bi ma am programme bu bu ñu mën a réaliser la parce que euh, booy laaj mairie. nekkul ne man nit ñi xam nañ ma wala am naa benn position au niveau de Thiaroye-sur-Mer wala cosaanoo naa fi wala am naa yenn relation yi donc damay laaj dëkk bi ñun thiaroye sur dañoo soxla koo xamante ni dafa ñëw pour am vision bu bees vision bu bees parce que fi ñu jóge dafa métti léegi képp koo xamante ni tey yaa ngi taxaw ne da ngay laaj mairie bi par respect à la population war nga mun a teg loo xamante ni tey xëy na population thiaroye ci programme boo xamante ni dafa ñëw pour defar ci vision bu bees boo xamante ni da ko bëgg ñëw andi loo xamante ni dafay wuute lool ak li nga xamante ni dañ ko yàgg gis. da jàpp ni erreur bi nga xam ni daloon la leen ci njaga ñaan euh, loolu ngeen di bañ mu dalaat leen. même bu yow moom la ñuy bañ mu dalaat ñu même bu dul Boubacar Djiba dañoo juumoon ci njaga ñaan te loolu ça nous a coûté cher léegi loolu moom moo tax échéance yii ñu jëm dafa nar a marqué histoire politico Thiaroye sur mhm. objectif bi nga xamante ni ñun ñëpp dañ ko am dans un premier temps mooy moom déjà na dem. ok objectif bi dans un premier temps na dem ngeen retrouver wu ak neuf listes est-ce que dina njànge ñaaw boobu dana neex a battre ci ci ci commune boobu. waaw euh, dina neex a battre boo gisee ma wax la loolu. mooy nit ñi léegi dañoo yeew parce que auparavant niñ daan politiquer di jéem a nax ñenn ñi loolu amatul. parce que boo jëlee politique ba ko def affaire d'appartenance ay man seen mbokk laa da ngeen ma war a voteel man ci dëkk bi laa dëkk. ah bi yaa fi wax village mais nag nit ñi. village traditionnel lébu boobu laa lay wax. man su fekkoon du village traditionnel lébu boo xamante ni nii tey wan war naa ci gis sama bopp man kon du ma nekk candidat parce que man je ne suis pas originaire du village. mais yaatal bi nga xamante ni nii tey sentir naa ko foofu sama bopp. mën nga ci gis sa bopp dama ci dama gis ne ci laa bokk. man damaa gis ne ci communauté ci communauté lébu bu caaro sur man ci laa bokk parce que ñoom yaatal nañ ñu yaatal boo xamante nii tey du ñu sentir que sax que ñun ay ay ay ay ay étranger lañu du ñuy du ñu sentir que ne ñun tey dëkk bi amuñu fi wàll te man damay dem di toog di toog ak ay dignitaire lébu di waxtaan ak ñoom te dañ may encourager ci xeex bi nga xamante ne nii moom la ñuy xeex te tel n'était pas le cas il y a plusieurs années donc pour te dire que li nga xamante ne ni moom la yaakaaroon que ñooñu ñooy ñoom ñooy fale ñooñu xam nañu exactement lu ñu fal parce que ñoom ci seen bopp soxlaatuñu ku ku ku juddu si dëkk bi wala soxlaatuñu koo xamante ne nii tey dañ naan si dëkk bi la cosaanoo parce que euh, besoin bi actuellement si Thiaroye-sur-Mer yëpp yëpp yëpp yëpp lu ñu soxla mooy ku defar dëkk bi te ñoom képp koo xamante ne nii yow defar dëkk bi arrangé na la pare nañ pour liggéey ak yow mais Euh, situation bi nga xamante ni nii moom nekkee woon na ko maire loolu moom xam na ni sax moom du am dara. Mhm. du am dara ku ne Thiaroye sur Mer ne géej ku ne Thiaroye sur ne ay usines yi nga xam ni bëri nañ ca dëkk bi nit ñi di dem caaro sur Mer di gën a avancé euh, léegi dañuy dem jël mbokk moom ci ligne bi moom salaamaaleykum sëñ bi ça va na nga def. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. tur bi ak foo ñuy woowee. Euh, tur bi nag xam naa dinaa ko leb. <laughs> da koy leb. waa kon baax la ñu lay déglu maa ngi leen di woowee fii ci goxu notre euh, futur maire je peux dire maa ngi lay fay. Mhm. léegi ñu lay déglu tey yow lan nga jàpp ni euh, dëkk bi nu mu mel foofu ndax am na ay avancement foofu. Mhm. voilà donc euh, tout d'abord avant di tontu question bi maa ngi nuyu képp ku ñuy déglu ak képp kuy suivre émission bi. Mhm. et à souligner aussi que ñu bëgg a participer bëri nañ parce que man j'ai mis beaucoup de temps pour mën a dugg. ah ñu ngi jégalu ma baax. Euh, voilà xam naa ni tam euh, ñàkkul bëri naa ci ay morom. Mhm. Mhm. <laughs> léegi pour juste wax rek si par rapport ak notre candidat monsieur Boubacar Djiba lu mu wax léegi maa ngi dégg ñu ne Thiaroye sur maire tey jii nii feebar bu mu am mooy. Euh, foo laal daal mi ngi métti waaw donc ñëwoon rek tey jii pour dëggal loolu benn ñaareel bi aussi pour souligner que koo xamante ni daa bàyyi ba dugg sur la vie politique soo ko saafoonteeg population Thiaroye-sur-Mer voilà donc c'est koo xamante ni il connaît le mot parce que maa ngi déglu émission bi depuis le début donc euh, à soulever côté éducation côté concours yi ñu souligner léegi nii côté santé donc c'est des yoo xamante ni il le maîtrise parce que socialement yaa nga taxawu jeunesse ak population carrément. Mhm. donc ci gàttal daal loolu laa mënoon. am na solo am na euh, solo ci moom. seede ko ci sa personne c' quelqu'un koo xamante ni côté social. mu ñuy taxawu bu baax a baax a baax. ok dimbali gars bu baax a baax a baax. et ça depuis bi muy nekk étudiant ba tey jii ñu mu taxaw samp ndëmbam ngir laaj mairie carrément. merci merci beaucoup jërëjëf ñu may itam comme ni nga ko waxee ñu nekk ci euh, buumu jokkoo bi itam mën a dugg jërëjëf. Mhm. jërëjëf jërëjëf. Mhm. Euh, nañ la may après nga daal di sant euh, askan wi nga xam ne ñoo ngi lay dégloo ca diwaanu Caaroy google euh, sama laaj bi mooy caaro yi ngi Caaroy sur mer géej la wax. Mhm. usines yi ñu ngi fa lu tax dëkk bi mënul woon gën a dox ci wàllum koom. ñun tey suñu suñu activité phare caaro sur napp gi la. napp la te képp ku xam. Thiaroye sur Mer xam ne pêche traditionnelle la ñuy def te pêche traditionnel bi doxatul ñun dañu am ay jafe-jafe yu bëri ak yoo xamante ni suñu mool yi dañ koy jànkonteel tey euh, gaal day dem géej réer ñu taal gaal dem di ko seeti ba gaal bi ko demoon seeti des fois tamit day réer normalement gaal warul réer gaal di ko seeti tey ñun waroon nañ fexe ba au niveau de du ministère de la pêche ñu utal ñu benn bato bu moderne am na benn bu fa nekk sax mais répondreul yenn normes yoo xamante ne mën na jëm par exemple di seeti géej en haute di seeti gaal en haute maire tey jàppale bi nga xamante ne tey dañ ko war a jàppale nappkat yi dafa des <laughs> tey dafa des ñu jël kooku salaamaaleykum allo salaamaaleykum ah soxna si ñu ngi lay dalal jàmm tur bi ak foo ñuy woowee maa ngi leen woowee Caaroy sur Caaroy sur tur bi Fatou Cissé mhm. ci ndaxam yéen euh, Fatou Cissé ca dëkk ba foofu yéen euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi am na yokkute foofu noonu ca ca dëkk ba. allo. ma ne ndaxam yéen a ngi gis yokkute ci dëkk ba. allo. allo waaw yaa ngi may dégg. lay dégg bu baax ma ne est-ce que yaa ngi gis yokkute ca dëkk goxub euh, Thiaroye-sur-Mer tey foofu. de question bi bu baax dégguma ce que am na dëkk ba am na yokkute. amul yokkute sur tout les plans mu sommes en retard te waa jooju xalaat nañ moo ñu ci mën a génne. est-ce que yéen ci jigéen ñi tey yéen yéen euh, ñu ngi leen di jàppale na mu waree ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum. Euh, suqali leen Caaroy mhm. est en retard sur tous les plans. di suñu suñu bopp moo tax ñu ni l'heure est grave l'heure grave te jeunesse bi lañ soxla jeunesse bi lañ soxla pour ñu defar jeunesse bi lañ soxla pour ñu defar dëkk bi. rawatina kooku nga invité di koo xamante ni ku dynamique ku ambitieuse ku am gëm-gëm caaro yi genre yi lañ soxla pour ñu développer caaro parce que caaro yi ni meloon boobu ba tey 17 ans même xaru kanam bi moom laa am. kon dara yokkuwul fa. dara amul changement amul caaro yi ñu nekk ñi ñi ñi ñu denc ci armère yi buñ jugoon ña fa nekkoon depuis bu buñ jugaatoon ku ne di nga delluwaat sa kër. parce que dara changé wu. Mhm. ndax euh, kon ci yéen soxla yi amul ja amul leen ndimbal foofu. amuñu benn ndimbal nous sommes en retard amuñu benn ndimbal gisuñu projet yi gisuñu ci suñu bopp gisuñu dara ñu ngi nii. baax na jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. waaw ñu ngi ñuy remercier El Hadj ji baax. jërëjëf waaw jërëjëf Cissé dina leen fay yéen ñëpp incha allah. ñu ngi koy ziar Fatou Cissé. jërëjëf am na solo. Euh, waaw ñu ngi koy souhaité bonne continuation. jaajëf am na solo merci Fatou. waaw si kaw si kanam amul ragal allah. merci beaucoup jërëjëf daal di wéyal yaa ngi doon euh, am yëkkati ponk bu am solo. ci géej. <laughs> maanaam moo tax ma ne jàppale bi nga xamante ni dañ ko war a jàppale. suñu tamit euh, ñu daal di koy jël salaamaaleykum. rëcc na ñu daal di wéyal. moo tax ma ne jàppale bi nga xamante ni tey dañ ko war a jàppale suñu mbokk mool yi dafa des lu bëri tey géej gi boo xoolee beneen constat amatul dara. tey ñooñu bu fekkee dañuy dem géej dafa ñaari fan ñëw duñ jàpp dara dafay gën a métti seen côté. dafay gën a métti seen côté kooku tam lu mu wax salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. di la ziar. di woote yaakaar naa ni ca commune bu caaro sur Mer. waaw commune de Thiaroye sur lan nga ñu mën a wax ci commune ba. Mhm. Thiaroye dafa nekk en retard. parce que ñun ñu ngi dëkk Thiaroye nekk fa plus de vingt ans duggee fa école tey jii foo dem changement amul route bitumée école sayam santé boo feebaree da ngay dem si yeneen poste de santé yi amul niveau niveau un amu fa pansement sax pour nga am ko foofu c'est tout un problème kon xam nga Thiaroye est en retard waxatuñ la nag développement bi jeunes yi sont en chômage kon ndaw yi ñu foofu non le maire n'a rien ñun ba njagañaar temps boobu yëpp ñu ngi fa foo duggee école jàng fa ba am fa université à l'âge de cinq ans ngay frôler ba trente ans ça veut dire que y un développement qu'on attend hmm. un maire sans bilan kon boobu ñun population Thiaroye ñoo war a am fula changé hmm. xam ne bu baax ñun suñu candidat boobu monsieur Djiba hmm. moom am nañ compétence bi yaakaar nañ ko ci moom parce que ñoom ñëpp gis nañ ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Caaroy xam nañ bu baax li ñuy wax. <laughs> Euh, rëcc na euh, jiba ñu bàyyi la nga wëyal li ñu des ci ay waxtu presque bëreetul ñu bàyyi la nga wëyal ponk bi moo tax ma ne mhm. comme suñu mbokk yooyu mhm. tey dafay laaj ñu jàppale leen parce tey activité boobu waroon na bokk ci facteur de développement pour la commune mhm. donc suñ ko seetaanee mu sooxe noonu dina bokk si li nga xamante ne ni commune bi dafay gën a dellu ginnaaw mhm. donc su ma baalee wàllu napp bi ñëw ci industrie yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk usines yi bëri nañ fa ah, lu tax dëkk bi yokkul te amul man dama doon tàmm di wax chaque fois ni usines yi fi nekk mat nañu mhm. ñu jël kooku salaamaaleykum ah, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax waaw man la Lamine Sonko. waaw Lamine Sonko xam nga waxtu bi daf ñu xaw a xoj ci une minute lan nga ñu mën a wax ci commune bi euh, Thiaroye-sur-Mer. waaw maa ngi ziare suñu suñu candidat Djiba di ko nuyu bu baax en tout cas li ñu mën a wax daal c'est le candidat de de de la jeunesse c'est le candidat de l'avenir de Thiaroye. lan lañ ko teg ci ay point boo xamante ne am na programme. te wax dëgg yàlla l'homme si boppam la personne dafa def ay réalisation yoo xamante ne donte nekkul maire mooy dans le ba nga xamante am nañu yaakaar. su nekkee mairie incha allah xar-xaru kanam Thiaroye dina changé. am na solo am na solo leneen li ñu ci mën a wax c'est un homme boo xamante ne bii intègre. boo koo xamante ne wax dëgg yàlla euh, loxo kat na te ci privé la nekkoon. donc kooku moom wax dëgg yàlla am nañu yaakaar ci moom léegi xaaral ma paase sama xarit Amid dafa bëgg a tuuti sama ñaar waaw ci tënk rek waaw ci ci ci tënk rek monsieur le maire maa ngi lay ziar maa ngi ziar animateur bi waaw ñu ngi lay ziar monsieur le maire man de benn point rek laa bëgg a intervenir tey jaar caaree doon dawal sama oto mais rus ndox xoolal mbedd mi foo romb ñu ngi tuur ndox mi ci mbedd mhm. mbedd mi il faut ngeen di xeex ci loolu yéen dimbali ñu ngeen xeex ci loolu parce caaree moom li suñ ko bàyyee nii mu dem waxuma dara sax de mais dañuy jékki-jékki ñëpp feebar. ah ok ah, jërëjëf ay ziar ñëpp jërëjëf jërëjëf alors dégg nga ponk boobu nee nañ assainissement la. Mhm. waaw ndax euh, ngir tëjee ko. Mhm. am na la nga xam ni euh, prévoir ngeen ko ca commune ba ngir nekkin ba fa askan wi nekkee mu ñoŋ. Mhm. donc euh, mooy euh, si priorité yi mu la waxoon sànq santé éducation ak cadre de vie la. donc tey waa yaraax bu ñu demee ba ku nekk sa buntu kër ngay ubbi. boo amee ndox booy fóot wala lox bu baaxatul sax da ngay ubbi caniveau sa buntu kër nga tuur mu dem yéen amu leen ko amuñu ko ñun si mbedd yi leen nit ñi di tuur ba léegi keroog dem naa benn waxta benn waxtaan si ay euh, femmes yu may dajeel ñaari femmes yu nekkoon ci waxtaan boobu noonu dañoo jote woon parce que fi ñu fi ñu dëkk ñaari kër yi dafa mel ni genre pante ñii buñ tuuree day dem kër gi li ñii buñ tuuree day dem kër gële donc loolu mooy yaa problème mm-hmm. donc ñun buñu demee ba tuuru ndox mbedd nga xamante ni kay quartier yu respecté seen bopp yëpp dépassé nañ ko ñun Thiaroye sur ba tey ñuy fóot di tuur mbedd donc yaa problème war nañ jógee ci époque boobu kon waaw Euh, dafa mel ni waxtu bi tënk nañu donc ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di mbokk yi nga xam ni dugg nañu woote ñu gërëm leen sant leen d'abord. waaw maa ngi maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne nii dugg nañu woote ak ñi nga xamante ni jéem nañ ko te peut-être serveur bi permettre leen ñu dugg ñoom ñëpp di leen wax nekk ne leen ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm que euh, vision bi nga xamante ne nii ñun moom lañ am si Thiaroye sur Mer allah bëgg nañ ànd ak ñoom ñooñu ñu développé ko parce que chaque fois dañuy wax ni ñun waxuñu ne pousse leen ñu dem mairie ba defar ko. jàmbat yi bëri na de ci ci téléphone bi gis nga nga jàmbat yu yi dañuy wax rek ne ñoom nañ ñëw jàpp si ñun ñëpp ñu ànd dem liggéey dëkk bi parce dëkk. du benn groupe de personne moom moo koy liggéey te ñun lu ñu bëgg moom mooy lan ñu def une équipe municipale bëgguñu loo xamante ne nii maire boo xamante nii day buur di bummi dañu bëgg une équipe municipale boo xamante ni dafay ñëw ak gis-gis yu bees ak ay xalaat yu bees mhm. pour ñu mën a liggéey Thiaroye sur Mer ok Thiaroye sur Mer euh, élection yi raw gàddu la mhm. euh, ko ëppale benn xob sax mooy est-ce que wàllum notoriété bi mhm. yéen a ngi ci moom ñi ngi ci ñun duñu gan si dëkk bi duñu gan ci dëkk bi donc fépp foo xamante ne ni war nañ fa dem pour waxtaan ak nit ñi ñu fay dem parce que amuñu sens interdit Thiaroye sur na solo te aussi ñi ngi waxtaan ak suñu militants yi ñi nga xamante ne ni ànd nañu ñun di leen euh, waxtaan ci wàllum violence bi pour ñu jéem a xam ne lii ñun ñëpp ñoo bokk Thiaroye sur mm-hmm. tey képp koo xamante ni tamit dañoo dogal Euh, ngoonu élection yooyu ñu déclaré moom mooy maire it ñun ñëpp dañuy nangu ne moom mooy maire. am na xeex ak yooyu yëpp. Mhm. Euh, maanaam ñu def ci élection yi ci dans l'apaisement quoi ñu def ci apaisement. ok ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci wuyu si bi ñu wuyu. Mbemba sant naa la gërëm naa la mm. ci opportunité bi nga ma jox ma teew ci plateau bu mag bi nga xamante ne nii mooy euh, plateau Rewmi FM. Mm-hmm. si émission bu nga xamante ne nii émission bu am solo la. di leen wax rek ne leen euh, ñun aussi euh, bëgg nañu lool à travers mon nom au nom aujourd'hui aussi de tout mon staff ñi ngi ñi ngi jël ay kàddu ngërëm di leen ko di leen ko jox ñu ngi lay sant itam di la gërëm di gërëm Léopold Mendy sama xarit la nag moom kii bi euh, ki nekk ci baie vitre bi di ko sant di ko gërëm ci nu mu jàppee ci émission bi kon donc jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM